dafay teel nag mën na leen appal ci ne fii ba vingt 29 mbir mi fa lay arrêté le 29 février bi nga xam ne mun nañu ñu dund kon nag képp ku doon xaar korité wala di xaar weeru koor na la wóor ne boo ñëwee daa fekk ñu tëj li déedéet li yées rek mooy kenn ku ci nekk suñu mu wóor la ne Arabie Saoudi réew la boo xam ne du tàggu kenn buy yëkkati ay loi ak ay tukiyam day yëkkati rek teg ko kon ñu xam ne lépp luñ ci dégg rek ñu xam ne loolu duñu Arabie Saoudi kon war na ci ki nga xam ne moo war a dem Màkka mu góorgóorlu teg tànkam fu mu ko war a teg mooy gaaw bindu ji booy day dem wala nga yóbbu say waajur wala nga yóbbu sa mbokk waaye tam nga xam fi ngay teg sa tànk agence bi nga xam ne moom nga bugg mu yóbbu la nga préféré ko nga xam ne agence boobu mu ngi ci yoon wala nekkul ci yoon bi maanaa tey ji est-ce que agence bi am na quota est-ce que am na agrément balaa ngay dugal sa xaalis foo xam ne dina jafe pour nga bi ci des nag mooy ñu ñëpp sénégalais yi ñu jàppalante dimbalante